Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eh, noo ngi nuyu bokki julli di fi teew yépp di nuyu bokki taalibe yépp di dellu di sant yàlla sunu borom cant koo xam ne na fu mu tàmbali waaye amul fu mu di ko tuubal ci mbooleem suñuy rëcc rëcc ci pas-pas ci kàddu ci jëf di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu dolli nu tawfiq ak kaaraange di sant Mawlana al khadim di ñaanal Cheikh Mouhamadul muntaka sun borom yagal ko fi lol tamay ko ak wir ba yéeneen juróom ak pas-pasam bu kawe ta ya yalla defal ko ndam ak barke ci liggey bi muy liggéeyal Serigne Touba ci tolu islam bi di ñaanal sunu sangu ba sunu borom dolli ko tawfiq ak ngërëm maulana Cheikh Saleh di ñaan ki toge ab jotaayam Serigne Cheikh Ahmadou barke dama de ko sëkk yàlla dolli ko tawfiqal momit ci naalam yu reuy ak liggey yu mag yu kawe yàlla dolli ko ci barke ak tawfiq di ñaanal borom kër gi di sunub sang Cheikh Mouhamadul murtada sun borom fiqu fanam du yok gërëm ta agal ay naaleem di nuyu ak siaré ki fi togal Serigne Touba ci gox bi muy Serigne salih Touré di sunub Serigne li tax mané moy sunu serigne nun 79 lañu serigne lanu sëriñ Saliou jëlsi te bi mu jëlsee got lanu yóbbu te booba sëriñ Saliou Touré mom lañ fa fekk booba it ñent at lañ am di dugg ci juroomi at mo tax bi mu serigne salih um ben ma xamone soxna ben bu baax ak soxna mam Dieng foofee ci kon serigne salih mom soxna ben noo ngi lay siaré lu bari boole na nga nuyu sunu sang boobee sunu serigne boobee sunu jëwriñ joojee nga xam ne taxawaayam ñëpp xam nañ ko waxuma la yoon wi waaye jullit yépp xam nañ ko ak ñu dut ay jullit sax di nuyu sëriñ Seex Lo yaakaar naa ne njabootu sëñ Bayloo ñëpp xam nañ leen ci kër Seex ibrah man naruma woon a jël kàddu ndax sëñ Saliou mais laa bëggoon mu yóbbaale ma xëy na xaal bi ma yóbbu ci wax moma ci yobbu di nuyu serigne abo mi bi ñu nuyo rek ma no ngi dalal suñu xel ci mom ndax dembu mel na ne gis nañ ko ci ci béréb yi ñu gis nit ñi waxtaan waxtaan wa dal suñu xel lool ma di ko ko wax legi nako mag lañ doon def ci lu baax buñ bañ ñu ne ñom ñoom yi di ko taxawé taxawin rafet xel da cey dal lool kon no ngi sant kilifa ñu fi teew serigne adama no ngi leen di nuyu te di leen siyaare ndax kóllëre gi nu yalla boole ñuy ay bokki jullit di ay bokki murit di ay bokki dëkkandoo yàlla dogal na bi ma sancee daara ji di jannatul si fii ci kër Mor Ndiaye ñoom ñoo fa njëkk a ñëw ngir def si fa ab durus loolu mooy sama kóllëre ak ñoom ñu yore wàllu kuréel bi dikkaat fa te loolu day suñ ndimbal la noonu xam nañ ko bu wér taw tawféex la xam nañ ko bu wér ndax xasida sëriñ bii fépp fuñ koy dottee malayka yërmande ñu ngi tiim ñooñee di leen ñaanal njëggal di leen ñaanal yërmande di leen ñaanal tawfiq kon képp ku ñëw ci yow di ko fa yëkkati moom moo la dimbali li sëriñ Saliou yi wax nag dégg nañ ko baax waaye nu danoo doo doo fas yéenee doon ay taalibe ndax ki sëriñ bi doon liggéeyloo te boole ko mbooloo mu ànd ak moom lañu doon jëf lépp moom dugalu ca benn dërëm moom ba mu dikkee sëriñ bi na ko lii nga indi day sa benn dërëm néew ci demal jëfi ndax ñi seen bopp lañ jëfal kon bu ngeen xiirtalee taalibe yi ñuy jëfit sëriñ ñi ñuy tudd ay sëriñ sax laay wax ndax man bokkuma ci man maa ngi ci biir taalibe yi ñoom nañ xam ni lu way jëf yaa ko moom ndax loo wax léegi man xamila saalihan fali nafsihi nga ne fali boppam loola nag sëriñ ba taalibe ñoo ci bokk àtte képp ndax talibé li ñuy jëf ci seen compte la jëm sëriñ ci li ñuy jëf ci seen compte la jëm kon bu kenn nax bopa man nanguma di jot li de ñoom ñi ma andal nga xam ne saa bokki talibé lañ ku ne ngi ci biir ci ñi ma andal ci jotaay bi waye nak nun day ni andé modi kenn ko ci nekk ñu ànd di lëggeel sëriñ Touba jité ci suñu jikko ñu doxin ci suñu melo ta lolay di dëgg ci ñun ndax damay wax ni julli ak jang alquran ak jang qasida ñoyam dafa am jeexit yu mu war a def ci nit lépp luy tur yàlla te tur yàlla boo ko waxee julli zikri la bokk wa aqimi salaata li zikri yi tudd yàlla ci sa kurus tudd yàlla ci téere bu tedd bi tudd yàlla ci xaside sëriñ bi ndax yooyu rek ko séq loole dafa am lu mu war a def ci noonu mooy li ci gën a jiitu mooy ñàkk a gis dara ci sunu bopp ndax kum doon ci nun fek yaa ngi gis dara ci sa bop lu toll ni sarra ko fenn mo lo mën a julli mana mana fenn lo mën a wana wor mana ko fenn lo mana mana mana jang alquran ko fenn lo zikr ko zikir fenn lo mana mana jang qasida ak boo ci mën a jëlit ko fenn ab taalibe ab julit du gis bopam la ca toppit moy waroo gis dara ci sey jëf jëf te xam ne yàlla dafa jaarale ci yow jëf ji waaye yow jëfoo yàlla mooy aji jëf ji kon bu ñuy jàng xasida ak nooru dari ñu def ko sunu waruwaay di ci dox di ci wut ngërëmal sëriñ bi ngërëm laytee nit ki am ko bokk na ci rëy laytee nit ki am ko bokk na ci njistal laytee nit ki am ko bokk na ci fen bokk laytee nit am ko bokk na ci tudd nit ki fu mu nekkul ci loo xam ne si ko déggoon du ko gënal bokk na ci laytee nit ki am ko jëf bëgg ñu di ko tudd ak jëf di ko naw kon bu ñuy jàng nañuy settantal ba xam li ñuy jàng mu ngi ñëw ci noonu wala déet ndax sëriñ bi kat xasida yi moom lim ciy def lépp lu mat a ñaan rek mat a wax sëriñ bi wax na ko ci biir moom dara manqué wu ci te sëriñ bi xeetu ñaan yi nam benn téere booy yër ci ab nitu yàlla yi nga gis sëriñ bi ni muy ñaane ak ni mu xamee yoon wi ak ni mu xamee boromam amut ba tax na yoon woow képp ku ci jaar te gisoo ci sa bopp war nga xoolaat sa bop bu baax ci saw doxin mhm. ndax julli kep bu nu wu ta wax ab safaan wuñu ko def tëriwuñu wuñu ko melawo mo baña dem ci jakk ji rek ñooyam kon nak bu ñuy tudd di ñu tudd ben qasida bu man di doon le gëna wir te gëna a moy nit ki lim lamb ci bopam ko ni ko bi waxe ci masalik sa yaqini bop na gëna wir ci yow fuuf nit ñi ko fogal man kat suma ma fi waruma gi nga xayni serigne touba tax ngir sante bi bu ngeen ko defee damay xam ne seenu bu baax la waaye man xam naa ne yelloowuma ko damaa yées ci taalibe yées ci jullit ñëpp yées ci bindeef yëpp la ma war a gën a yëg mooy xool ba xam tàmbalee ci sa bopp kii kat nee na nañu dàggi taalibe waaye man dàggiwuma kenn sa bopp laay dàggi man daal li may xool mooy ba xam man maa ngi ci li ma war a nekk wala nekkuma ci man a déet ci sama xol te ba ne yóbbuwaale taggu nit ñi rek ba defe ni dara laa tagg bi ak ŋàññ yu ñoo yem ci man képp képp képp képp képp képp ndax lu ma ciy yokk ak lu ma ciy wàññi xaw ko li lay yokk ak li lay wàññi du liy bàyyikoo ci nit ñi waaye liy bàyyikoo ci sa bopp la kon nun ñëpp nañu xoolaat sunu bopp sëriñ bi sart yi mbax ni moo ni tax a doon am murid ndax noo nga ca wala déet mooy dëggu ci bëgg yi ak lu mu mën a jural na ci ndigal ñu xool ba xam li nu sëriñ Touba bokk digal nun ñëpp nan lañ ci def ndax kenn mënta nax boppam lu wax ju bari bari bari bu ngeganaa yoo sab ndeyoo xam nga yow kan boo nekkee ci biti nak wax ji man na bari coow li mën bari darbeeg wax jek yep waye nak ku ne xam nga yow kan kon deggu ci bëgg gi ak nango top ndigal li baña bayyi nak leen ndigal jël yomb ya bayyi fa yu diis ya ab taalibe fu damay wax naa ko waxati ko sëñ Tuubaa amul morom du lees di wax dees koy jëf fii na boo bokkee nit nekk fi béréb nga bokk koo xëcc ci sëriñ bi li sëriñ bi def ci yow na feeñ rek ci ak njub ci ak ragal yàlla ci ak maandu ci ak rafetal su loolu wéer yi ci yow rek bu koy gis ci yow baat boo ko wax bu ko toppee baat ba dara du ko dindi loo wax ak moom bu ko toppee dara du ko dindi di sàmm sa kàddu doo wor do wuru do siwal waxe jambur do tuddu nit fum nekkul do wax lu deug li nga bëggal sa bop nga bëggal ko ñepp nit ki bu ko bo taxaw mom muy ko ci yow ben benn joggi wut ci mom jëm ci jëm wut ci yow jëm ci mom te njariñ a ngi joggi ci yow di jëm ci mom te lor ju joggi ci mom jëm si ci yow yaang ko koy gaddal ngir yàlla su ba dana xam yow mi kat amo morom ci yow lay tàmbalee do a yegg ci sëriñ bi kon deggu ci bëgg sëriñ bi toftal ca nangoo tok ndigal taftal ci rekki sunu tanef ndax nun ñu ci bari legi sunu tëri bi woyof na toy de ndax lu sëriñ bi wax ñoo ngay seet luñ tay linkar linkaar bi ni la warona wax waxee bi da wara wax loolu ab bi du ko wax bi da wara wax yow da nga gëna xam sëriñ bi wala da nga ko upp xam-xam kon rekki sunu tanef gi ñu war sunu digënté sunuy kilifa loolu nañ ko xam bu baax ak ñaka garal sëriñ bi sart yooyu moo tënkoon yoon wi kon képp ku jóg di xeeñ sëriñ bi yoon woo mën a aw ak ci koo mën a jaare mu doy la sa digganteeg sëriñ bi balaa doy gaa mën a wér ñeenti sart yi da nga koo matale kon loolu nun taalib yi nañ ko def ci sunu bopp bu baax foo ñu toll ñu doon takk ndeeru sëriñ bi nangoo jaamu yàlla te nangoo liggéey wattandiku tooñ te jéggale ak tooñ ngir jëm yàlla xam ne lu baax it ma nga fam nekkoon ba tey nag ndax l léeg fi mu ne léegi boo gisee kenn nit ñi amna ci lol bokay waxtane waxtaanee dañuy def ni lu munta nek la ndax xëy ñu ci bari dañu jëmu ta dox motax lu bari la na ci yono do ko mëna xam waye fa mbir ma nekkon batay ma dafa wala tuqassis fadl rabbin qad ala bi si taqaddumin faqat fatatala man nga nañ doon yegge suñu borom man nañ ko de ndax lépp serigne bu bayil nako bayil bàyyil nañu ko fi topal nuru daari ni bam jeex toppal jalibatul maraaxib ba mu jeex xasida yi goo ci topp man na laa defar ba nga yëg loo xam ne saw làmmiñ di ko tudd nag dafay laaj ak dëgg gu wér sàmm gu wér maandu gu wér rafetal gu wér ku ànd ak Serigne Touba noonu nga war a dunde kon nag fu ñu toll ñun ñëpp nañuy maase doon takkandeeru sëriñ bi ci nangoo jaamu yàlla ci nangoo liggéey ci wattandiku tooñ di jéggale ak tooñ tey jëllale ak tooñ ngir jëm yàlla te liñ bëggal suñu bopp yi nu bëggal ko jullit ñëpp te yàlla tax ndax comme doon ci noonu bu la wóoree ni kat sa boppam taalibe mii li nga bëggal sa bopp ci tawféex ci jàmm ci sutura ku la sàmmal say wax ku la sàmmal say jëf ku rafetal ay jëfalantin jëmale ko ci yow ni nga ko bëggee ci sa wetu bopp féet demoo ba bëggal ko taalibe yëpp na la wóor doxu boo kon nanu bëggante ngir yàlla nañuy jàppalante ngir yàlla nañuy dimbalante ngir yàlla mbooloo yu bari nag li yàq ci jamono bii té ab taalibe war a sori lola bëgg ja moy li ma waxon légui rek moy gis gis suñu bop fék no ngi ci rek lu baree bari day daal yaq yàqu ndax bari nañu tan mbolo mu nekk buñ ci amul cër amuñ ci kaddu fas yaq mbolo fas ko yéene tasaare kon yow taxatu la jóg sëriñ bi la jóg ndax bu fekkente ñun ñëpp génn jëm lañ ku jitu rek baax bu dee yow lu baax do nga lay téel lu baax nga la ñor ku mën di jitu na dox na wara doxé rek ci sëriñ bi ñu ca des ñëpp topp gannaaw kon noo ngi ñaan li ñu fi ñaan lépp ci xasida gi di nooru daare ni yàlla na ko sunu borom sëmbërtal ci noonu ci darajey sëriñ Touba lépp lu ci sëriñ bi ñoddi lépp yàlla na agsi ci noonu tamit ànd ak jàmm lépp lu mu ciy jañ yàlla na nu sori ba faww sunu borom ndox suñu digganteeg seytaane ba faww dëgëral nu ci siraatal mustaqima te musal nu ci mépp ndog musal nu ci bépp pakk musal nu ci bépp musiba musal nu ci bépp balaa te bokk na defali mujj rafet kon noo ngi sant kilifa yi fi teew yëpp di sant suñu bokki télé bi yi fi teew yëpp di ñaanal ku doon la nga bëgg ci sa bopp bëgg ko ci sa njaboot di ko yuutu te bëgg caa jot yàlla mi am kattan ak tawféex yàlla na la ci yàlla jotal tam ànd ak jàmm ju sedd guy ku ne lam ragal ci boppam ragal ko ci ak njabootam di ca ñaan yàlla musal ko ci yàlla mi mën a musal yàlla ko ci yàlla musal ba faw te suñ borom defal mu gërëfet asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu